Bienvenue sur Salam Vision. waaw sant rek am xool contentement wax dëgg yàlla mooy li ñuy wax rek delloo mbàtt ca a la fay naar ba xoromam ndax papaam defal nañ lu ne taxaw fu ne wax dëgg yàlla suñ suñ ko taxawoo war nañ ko taxaw même bu duloo sax war nañ ko taxaw ndax moom doomu géej waay la géej waay la représenté ñu ko ñaanal suñu borom defal ko ndam li sedd guy tafati seen naaw waaw ñu ngi koy ñaanal rek amuñu leen lu ñu wax di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam rek tafati seen naaw rek toog xamuluma di xaar marchandise bi jarum nag bu sa dara jóg waaw waaw noonu moom la moom non gars yi ñooy wax nii man Balla nee naa leen su jëlee yaaw jaal sax ñun dañuy dem te combat bu muy jëlaat nee naa leen di ngeen gisaat beneen visage waaw. beneen Balla. beneen Balla ak nit ña mu daan àndal guddi ak bëccëg suba ak ngoon di nga leen gisaat ak ñoom si combat yooyu yëpp garaawul erreur la mënut a jàkk mënut a jàkk mais jàppal ni ña nekkoon ñëpp dañoo bëgg Balla kenn bañu fa Balla mais teewul loolu dootul amati. mais bëgg nit ki war naa mën a tax maye ko. mais loolu dootul amati loolu moom garaaw loolu moom tekkee dootul amati. dinañ ko lijjanti incha allah. non dinañ gérer lépp incha allah. nañuy waaj rek te bàyyi suñu ruux ñu lijjanti li ñuy lijjanti pare liggéey li ñuy liggéey incha allah ku mënti ñëw am ndam si kawam incha allah. yaa ngi macha allah ñoo si open press Youssou Ndour bi. waaw dama ciy sawar ndax Youssou sunu doom la bañ na ko ba ñii koy tëgal kii di Lamine sama doom la sama doom a ko daan tëgal Demba Joor yàlla def mu tukki léegi ay rakama fi ne mais Youssou dafa nekk xale bu yaru u yëg ay yaayam yëg ay papa ñu nekk ak moom ci koñ bi tubaarkàlla macha allah kon su amee bés mënuñu rek lu dul sañ sa génn defar ba mu baax. tey jii soo ko gisee tey mu sumee ko muy premier combat mi nga xamante ne papaam nekk soo ko gisee sa si lan lay dem ak sa yaram waaw loolu nag moom day xaw a daw yaram ndax fu mu mës a taxaw rek papaam day nekk ci wet gi kon tey su nekkee fii taxaw sumee ko war a bëre gisuñu papaam dina xaw a triste mais lépp rek ci cadre mbër la góor góor lu rek ànd ak jom mu takku rek bëre daan daal di ñibbi. maa jërëjëf. and the back while in the eye, waaye dañuy xaar ñu julli après ñu eggale. man maa fi dëkk man maa fi juddoo man maa fi yaru ànd ak xale yi ànd ak seen i mag seen i waajur ma jox ma cër donc loolu moo tax mënu maa ñàkk a ñëw ñoom lu ñu xewle incha ay waay asalaamaaleykum mbokk aynu maan ñoo ngi nuyu aussi waa Medinatu Munawara ak Lansar di nuyu waa Jidda Caare kaw yëpp di ci jiital euh, sunu rakk sunu xarit sunu mbër bi di yuusu di yuusu di ko ziar bu baaxa a baax a di kontaan ci teewe bi fii ci ay Aynoumane di nuyu fans club bi donc jukku ci taala pour mu nuyu ñu membre fans club bi yëpp nuyu bu baax ñi ñu àndal di tulaay ak ñoom yaama ñoom mami Diop nuyu waa Aynoumane yëpp tey sunu jaar-jaar fii ci ay Aynoumane dañu mënul woon bañ a ñëw accompagner suñu jeune frère Youssou muy préparer combat di combat bu am solo ñu ko ci ñaanal ndam lu sedd guyi te muy njiglaayam Youssou di nit ku baax ñun ñu nekk acteur politique fii ci commune bi war gunge donc tous les acteurs sportifs loolu mooy quintessence suñu taxaw fii tey ci Ainoumane et gëm nañu ni Youssou dina am ndam incha allahu rabi dañu nekk candidat nag ci mairie bi di Djiddah Thiaroye Kaw di élection bii ñu jëm ci la 23 ñu bëgg a xamal waa Aïnoumane que ni ñun ci suñu programme dañu am benn projet de d'aménagement et de verdurage du territoire muy pavé 1 te phase bu njëkk bi dafa concerné Aïnoumane ak Djiddah ak euh, Médinatoul Mounawara et c'est 22 000 mètres carrés de pavage ah toll ci deux cent cinquante neuf millions ñu war ko jagleel waa Aynoumane ak waa Medinatu Munawwara nga xam ne mbedd yëpp sur un linéaire de quatre mille quatre cent dix huit mètres dañ koy pavé loolu a ko woon bañ wax parce que maa ngi fii Aynoumane en tout cas ñoo ngi ñaanal Youssou bu baax taala di leen ñaanal yéen itam di leen ñaana ndam bu sedd guy guy guy guy muy jiglaayam asalaamaaleykum waa Aynoumane ñoo ngi leen di ziar bu baax di leen gërëm di sant kontaan nañ taala Thank leen sant ci ni ngeen teewe fii ngir jàppale suñu frère Youssou Ndour alors damay commencer ci ñaax yu su Ndour ci jouru combat bi di ko ñaan mu respecter adversaire am dóor bu baax na door yi dal na jàpp ndànk daan ndànk ñun victoire rek lañ soxla incha allah yàlla dina ko def ñun fii dañoo war a am champion dañ ko war a gëm xam ne dañuy am champion par force roi des arènes jomb ñu ko am de incha allah Youssou Ndour mu ngi juddoo te Barak man mi taxaw di wax ak yéen Cité Barak laa juddoo lu ñu def fii dañ ko xeeb lu ñu amoon lu ko weesi danañu ko fi def parce que suñu combat la du combat kenn fii ñu taxaw nii di wax man du sax sama dëkkuwaay sama titre foncier la comme ni ko ñeneen di waxee feneen fii laay ndamoo fii mooy sama titre foncier maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf mbokk fii ci Guédiawaay li ñu fi indi nag mooy ëppal presse bi ngir war a def war koy jàkkaarloog ak presse bi ngir waajal diggante ak caatu Yoff Assane Ndiaye def mooy ñaan Assane bis bi yàlla may ko fi dam yàlla moom ci muy si total ndax ndaw la góor góorgóorlu di wax ne dimanche dañu fexe ba képp kuy amateur la am nga def arène nationale ngir jàppale ko. bisu Ndour ginnaaw bi ñu ñëw di sant di la tey. toog sama xel nga xam nan nga waajal si diggante ak Thiatou Yoff nga xam ne des ay fan yu tuuti ci des. waaw ginnaaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ma sant yàlla julli suñu bi sant samay ñaari waajur di sant waa Aynu Maam bu baax aw ma seen fay ku si mel ni grand faral maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ak gaynde waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm salaam di gërëm sama papa li nga sama papa maa ngi seet ak sama waa koñ ñoo xam ñoom laay àndal boobu ba tey ba combat bi taxawee bàyyi wuñu ma benn yoon ma wér maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw. caatu yoon ñu dégg ci ay waxam mu ne dina la nax ba daan la. waaw ndax daa ànd ak doole te man xale laa nekk sama éjiru papa nekk sama ginnaaw mag comme que dañ daf may nax nañ xaar ba le jour yi ñu xool yàggatul deux jours rek xaw ma trois jours bu nekkee daf may nax dina leer. sortie bu njëkk ginnaaw bi sa papa tëddoo àdduna sa a génn sans sa papa fekk deuxième sortie loo a manqué comme dab rek comme ma ñëwee woon rek ànd ak samay papa samay mag lu ma la wax léegi léegi dem na mais am na ñu fi bàyyi dénk na fi ay nit ay kilifa ñoom ñooy fi te ñoom ñoo may omat ba bis ba ma daan kii jëlu seli ci kar yoof waaw ah, li ñu jaaxal tey sa papa ni mu mel ci géej waaye di jikkoon kenn ku ne jaar ci keppaaram ñu gis fi ñi nga xam ne ñooy ténor yu mag yi gisuñu leen fi gisuñu Balla Gaye 2 gisuñu Lac de Guiers gisuñu Gouye Gui lii nu jànn fi gis tey taxawaay boobu tey ci ñi nga xam ne ñoom lañ dund ak sa yawu waaw dernier temps Lac de na ñëw man maa ne bu ñëw ndax fi mu jugee kooku suma mag la suma papa la suma lépp la Lac de Guiers suma xarit la dafa génn yaa dégg kon man amuma kenn géejuwaay xaruma yàlla yépp samay grand lañ samay mag lañ bu ñëwee yàgg-yàgg si buntu ba lañ yem dugg si géew ba kon lu fa war ma maa koy def ñoom teggil naa ne sart bi dañ xaar ma daan booy bi yóbbu leen drapeau bi waaw bi ñu gis Youssou bi ñu gisoon combat bi weesu ak combat bi dafa mel ne dangaa wàññi poids lan mooy sababu wàññi poids bi waaw nekkoon suñu pour liggéey rek ndax ku ne xam na ni làmb entraînement la liggéey moo tax maanaam samay mag ñu entraîné ma ku ci mel ni Maguette Seck dafa bàyyil boobu ba tey ak sama booy ñoom Lamine Sita ñoom Mbër Jaayëp ñoom Sam bàyyiwuñu ak sama papa Ousmane Ndiaye chaque ngoon daf may yóbbu stade di ma entraîné kon ñooñu mun mun leen fay. wàññi poids bi sa lan moo tax nga wàññi sa waaw non yi métti la rek su ma duggee làmb jël le 16 incha allah loolu du feeñ bu neexee yàlla waaw. wala dimbali ma loolu nga gis. dugal ci waa yow kii tubaarkàlla ma ko sàllaa kaa bu ko catu. surtout bi maa ngi wax. am naa dégg jàpp wax nee na adversaire moo doon doole muy dina gul mais li nga daanee ak li mu daanee bokkul le bu la daanee ba nga ñibbi mais ci moo la dàq bëri lépp li nga xamante ne moom a ci loolu nga xamante waaw moom daa wax xalaatam rek ay nitam ñoo ko rek mais ku ne xam na ni làmb bu waxee dëgg dëgg dëgg caatu yow toolu fii bu neexee yàlla yónni bi samay supporters yamuma leen boobu ba tey déggul ma la kii lépp lu fay war man maa koy def maay xale may bëre maay daan bu neexee yàlla. dañu naan sa coach léegi dina ko Thiatou Yoff ak Youssou Ndour mu ne Youssou Ndour ma ne ko Youssou Ndour est-ce que bi dina ci xeex mu ne ma Youssou ñaan na ma ko xeex bi nga bëgg xeex ak Thiatou Yoff lan moo tax nga bëgg a laale moom ci xeex ba ko bëri moom. waaw xam nga lu tax loolu ndax moom nee jàmbaar la mu fekk mu mat ko mu nekk jàmbaar yaa ngi dégg te man tam ñëpp bu xam sax benn tànk du fekk si beneen ginnaaw.

nañ ma bàyyi may root di daan ba si kanam si kanam lañ may xam mais mënuñu maa xam léegi caatu yow adversaire la comme adversaire rek waaw kooku mu mënut a weesu adversaire ñi may bëreel ñëpp moom moo si gën a tuuti. waaw côté côté. Youssou combat bi nekk combat boo xam si ne mën naa la du ma si wax ndax làmb la man damay ñëw ngir sama bopp. damay ñëw ngir bëree sama bopp ak sama fulla sama fayda waaw ak école bi mais du leneen ramas jëlu ma ramas sama bopp laay bëree gàqoo ba ñëpp ku ne xam ne muy bëree moom daa feebaroon loolu jarul ñu mën ci détaillé ok catégorisation ndax gis nañ ni Assane mi tëgg seen nawle la te mi ngi xaar li mu def ci yéen ngeen jël ko lu toll lan ngay wax sa supporter yi ngir jël ticket sax waaw booy comme lu ma leen wax sa jour rek arène bi dina fees mooy sànni ma leen xool sànni ma leen xeex yàq benn séen ndax li am si géew man maa koy def kenn mu sànni xeer sànni kenn mu def dara ma jàpp booy bi daan ko ànd sama papa Ousmane Ndiaye ak ñoom liiru ma daan booy dem dem. waaw. waaw loolu waxoon nañ ko man déggoonu ma la bu ñu ma si boole woon dinaa naanam si nii si naan bu neexee yàlla. lii ñu jàng tey gëm sa rak. waaw sama doom. sa doom waaw. waaye da ma damaa waaw suba la wuyu ma. waaw déglu leen. li nga lay laaj xam ne dana boo xam ne képp ku bëgg géej daanaka am nga la naqari. dëgg la nga war a ëmb tey sa doom indi ko. incha allah maa ngi leen di bàyyi xel ci li nga jógee boo indi sa doom. Euh, Fadel yal na la yàlla musal ci cat at làmmeñ su dee booloo fii la fekk baax gis nga way ku booloo suñu la ko gisee loolu fàtte nañ ko lu sunu kanam la ñuy wax loolu passé na lu sunu kanam la ñuy wax yal na ni yàlla musal ci cat at làmmeñ lu sunu yal na ko yàlla may ndam sedd guy xale bu yaru la xale bu yaru la ndaanaan la. moom la ndaanaan la wareegul nag ci kanam lay di comprendre yàlla ko yàlla la fal cat sunu doom la man su ma su ma ñëwee ñëwal naa sàmm yooyu nekk géejoo yëpp su ma ñëwee ñëwal naa ñëpp sama doom la sama rakk sama xarit la te yaru na tubaar kàlla maa sax yuusu bareegul dee bareegul dee yàlla ko yàlla la fal cat ba dimanche ak jàmm. non non day wax lu ko neex nag day wax lu ko neex ah adversaire yi bëri na te wuute ba dimanche ak jàmm. waaw di woo ñëpp may ma ma woote ma doo woote man maay woote. anniversaire déglu déglu wuyu ma ñun kii doomu Géejawaay la fi la juddoo papam def na lu ne Sénégal def lu ne Géejawaay comprendre nga li may ñaan autorité yi nekk Géejawaay ñu fàttali ko démb ni Baye Balla am na lu mu leen defal te lu ñëw jàppale doomam Youssou Ndour. moom la fi bàyyi sunu rakk la sunu doom la sunu lépp la bëgg nañ nag génn waay damaa bëgg ñëw jënd bi yëpp jàppale ko mu doy aada ba mu fees ba mu fees dell waaw ak moom moo génn waay ñëpp leen ñëw ndax ay magam la rek ak i nijaayam ak i baayam dong ñoo fi rek oto li laa wax oto du tey ñu ñëw jàppale ku ci bëgg a gagné di nga ñëw jàppale Youssou maa la wax lii yàlla lu yàlla lafal cet ah doo gañ doo am ko jàppale ci kaw ci kanam jërëjëf waaw di gërëmaat ñëpp di santaat maa ngi leen di sant di leen gërëm waa yàlla na ko yàlla yërëm ma mag Aliou Seye Diop maa ngi lay sant Balla Gaye 2 ñëpp sama papa maa ngi seet di woo waa Guédiawaye Aliou Sall sama papa Ahmed Aïdara sama papa la ñu fay kooku du ma ko fàtte mbës du ma ko fàtte di gërëm ñëpp di sant ñëpp di xam ni gars yi kat nañ ma ñaan la 16 maam Ndambu Seydou Guèye su neexee yàlla yóbbu woo naa ñëpp Modou Guèye maa ngi koy woo papa Mama Fall maa ngi koy woo Andaw maa ngi koy woo képp ko xam ne ngay dëgg géej waaye di ma jàppale rek maa ngi lay woo Fara Ndaw kooku mention spéciale Fara mention spéciale kooku lépp bee yëpp moo ko jënd waaw laay kon ne sama gars yëpp maa ngi leen di bëggee.

te ñun kenn du ko jàngale te bëre sport boo ci defee cinq ans professionnel nga moom mën na waajal boppam préparer boppam dem bëri ji kay nag lee muy wax concerné wu ñu xam nga lan moo ñu lan moo concerné Youssou arbitre sifflé mu def lu muy def indi ndam bi fii làmb nag daan dem la daanu xaar def ci jom ak fulla ak fayda yàlla na yàlla suturaal sa papa li mu liggéey si nit ñi yàlla na la wallu ci bis bii waaw te xam na ni am nga jom am nga fulla mais dañ lay ñaaxaar rek waaw waaye na ñëpp génn ñoo jàppale Youssou parce que jàppale ko dafa jot waaw parce que di la remercier di wax ne moo du soriwul mu ngi fii ci marché pënd bi donc dafa waxoon naa ko fi jiitu pour après moom mu ñëw donc considération bi mu am ci yow ak dayo bi ma bi mu la jox ku doon sagoom tey day fekk open press bi mais xëy na programme bi ñu yor moom moo ñu xaw a tënk mais ñu ngi fii moo tax ñu ne mën ñu ñëw fii teewee avant que affaire yi di tas donc vraiment xamal ne ñun ñu yaay suñu mbër ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw suba Mamadou Gueye nag ci li muy dox yaakaar naa ne ñun Djidah Thiaroye Kaw yëpp xam nañ ko te xam nañu aussi seen diggante ak Mamadou Gueye donc dañuy encouragé di la di la daal mag la ñu ñu ngi sa ginnaaw lépp loo soxla wax na ko incha allah ñu jàpp ci ndax boo amee ndax rek am na nañu ndam Djidah Thiaroye Kaw am ndam. dinañ leen ko asalaamaaleykum wa rahmatulah dinañu jënd incha allah rabi. dégg nga li ma la wax mën nañ ko jënd tey sax waaw loolu moom amul problème. waaw ah, ok waa nañ ñëw toog sànq ba rafet ma daan booy dem ñibbi. waaw su ma teew de ànd ak monsieur le maire Regueil le plus jeune maire. la banlieue bëgg meeru Pikine liggéey Pikine liggéey banlieue doon xal bu am fulla loolu moo tax ma ànd ak moom tey jii mu ñëw fekk si naataangoom di François François yëkkatiwuñu du suñu euh, nit doon xale comme moom ñu bëgg a àndandoo ñoom ñëpp defar Pikine ndax Pikine dafa am lu fi manqué lu bari tey mbër yaa ngi nii dégg nga ñoo ko wax dañuy am combat di am problème mu ay billets di am ay problème mu transport dama may dégg loolu du yoon maire bu ñu fi tegee commune bu muy jàppalee euh, mbër ya tax ndax culture lépp la mbër ci la bokk acteurs culturels yi ci lañ bokk ñëpp ci lañ bokk mais budget boobu dañ koy jël dugal ko foo xam ne du foofu waaye kii bu toogee kuy mbër wala ngay théâtre kat wala ngay loo mënti doon di nga gis sa bopp ci Pikine ba pare dina assainir Pikine bu ko fi jaar respecté leen tey jii seen bayal bi waroon nañ ko aménager ba nga xam ne ngeen def open press ku ko xool mu taaru waaw léegi nag dañ toll ci jamono yoo xam ni jamono yi innové la xale yu ndaw ñëw ñu nag fas na jël li ñu moom te bu soobee yàlla Ibrahima ak euh, euh, ak François xam naa ne bu waa waaye mobiliser ak Pikine téye leen li ñu bëgg dinañ ko am loolu moo doonoon sama teewaay tey waaw merci. kon monsieur le futur maire. de la ville de Pikine ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziar waaye ñi ngi am mbégte di la dalal tey ci open press bi nga xam ne sa doom sa rak sa jarbaat sa xarit moo ko doon def ndax papam Balla Gaye numéro un dëggal na ku ne ci làmb te tey jii buñ naan écurie Waalo moom am na ci wàll woo xamante ni kenn mënatu koo fay nga ñëw ci bésam bi sa rak François Ndaw invité la ban yëg-yëg nga am ak ban gis-gis nga am ak yan soññi nga koy soññi ci làmb ji nga xam ni maa ngi lay nuyu kontaan ci euh, présentation bi nga xam ne moom nga def ci sunu modeste personne waa di wax ne ñu ngi nuyu waa Jidda Caaray kaw yëpp mais di nuyu Pikine parce que ci biir Pikine la bokk département de Pikine di wax ne am contentement aussi ànd ak ci délégation muy ma Madiaga ñu koy wax Père Zora di ànd ak suma sœur suma xarit di un opérateur di une opératrice économique di Maam Jaara Caam mi ànd ak aussi tamit sama sœur sama xarit Fat Sey moom it même chose di opérateur opératrice économique euh, Fat Sey di wax ne ñu def délégation boobu ñëw fekk si nit koo xamante ni nii ñun ku ñu respecte nit koo xamante ni dañ koo naw nit koo xamante ni dañu am yaakaar ci moom pour ànd ak moom dem ville liggéey muy le président François Ndaw ñun ñi ma àndal sax xam nañ ne dama am benn considération bu ma am ci moom parce que nit ci élégance laa koy téye biñ ko njëkkee seet ni mu doxalee ñun rek laa xam ne kii mën nañoo ànd te ba ñu génnee sama staff yëpp loolu la ñu wax tey jii mu ñëwaat ci biir këram am ay xaleem lii muy wane ne moom am na taxawaay fii kii di Youssou Ndour di sunu rakk di sunu jarbaat di doom di lépp si ñun war a dëdmal bés François wax ñu ñu kon war a ñëw ndax nit kenn du ko xeebal bésam tey kon bu ñu ñëwee danoo ñëw pour apporter suñu soutien ci lii. Mhm. parce que bu amee ndam ñun ñëpp ñun ñoo am ndam. waaw Pikine moom moo am ndam. ñu ñëw nag teew teewaay bii ñu teew nag mu neex ñu trop comme ni nga ko waxee lii yëpp nag dafa jëm ci rek pour am taxawaay sensibiliser waa Pikine pour que changement am mhm. dañu war a changer bu ñu nangooti kenn di ñu nax. Mhm. ku ñu dénk sept ans defaroo dara ci Pikine nañ la puus ñu xool keneen falaat kooku catastrophe la waaw ñeneen ñi fi nekk xam nañ leen nañu fal ñi nga xamante ne nii développement la ñuy def ku leen dénk xam nañ fi ñuy jaar pour defar pikin et mooy ni ma ko waxee sama émission bi démb rek ñëpp dégg nañu ko kon ñuy woo waa Pikine yëpp ñu ñëw jàpp ci defar defar sa liste euh, ci liste defar sa gox bi nga xamante ni moo am biddéew bi. bu jour élection yi le 23 ñu vote ko ñu vote ko incha allah ñu vote ko le le le le le le le ci ngoon carte gi leer ngeen jël seen lider Ibra Gueye yóbbu ko ville ñu jël ville Pikine def ko. une ville moderne loolu lañ bëgg. waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. mais gis nañ la démb démb ci plateau bi. télé bi mboolem maire yi nga xam ne ñu ngi ville bi. dëgg ne fa. waaw gis nañ ni. présenté nga foofu benn benn programme boo xam ne. ñoom ñi toog ñëpp kenn présenté wu ci. lu toll ni kaar dëgg la. liggéey boobu nu mu demee. waaw boo xoolee damay remercier tam population Pikine mhm. ndax teyoo tey sama téléphone mu ngi sonné ñu apprécier sama taxawaay ci plateau ba message bi ma lancé ak aussi tamit li ñu doon incarné mhm. ndax Sénégal gépp ñu doon seetaan ñu xam ne Pikine am na ay doomu Pikine yoo xamante ne ay gentleman lañ ay self made men lañu mm-hmm. comprendre nga challenge lañ lañu gëm. des rois des arènes comme eh, eh, eh, exactement mi ngi noonu. wax naa ko wax naa ko ci palaato bi. Mm-hmm. Euh, certain candidat bi muy wax ne Pikine amul leader ma ne ko noonu retiré loolu. Ah Pikine ay leader ñoo fi nekk ay diplômé mm-hmm. ñoo xam ne ay boroomi bopp ma ne ko ñi téye bu ñu ci génnee pikin Sénégal dootul dox kon donc. Euh, noonu la demee parce que ñun boo gisee li tax wax plateau bi ni mu demee noon ñun dañoo xam Pikine juddoo Pikine màggee fi yaroo fi def fi lu nekk nag kon Pikine ñun xam nañu ko Pikine nag bu ñu bëggee mu defar dañ koy jox ku ko xam incha allahu rabi dinañu gën a yaatal yow mi nga xamante ni yaay chargé yaay sama chargé de com après di ma jël ay euh, vidéo yoo xamante ne nii dañuy dem parce que dama bëgg bind nañu programme bi ci ci tënk ko ci këyit mais dañoo bëgg suñu yaay yeeg yooyu ñi nga xam mënuñoo lire ñu def ko en vidéo comprendre nga expliquer leen li ñu bëgg ci Pikine bu ko defee ñoom ñëpp ñu dégg ko ñu mën koo xam parce que nañ fal ni ñi ci programme ak aussi tamit kooku wax bu tegee programme nan lay def ba réaliser ko ndax ñëw rek ndax ñëw rek ne mën naa mën naa tabax gratte loolu amul sens mais waxal nooy def ba tabax ko ñu ngi sant ñëpp. président président moom Diop. waaw waaw waaw. yow gañaa nga. dëgg la jërëjëf. gañaa nga. dëgg la jërëjëf jërëjëf. jërëjëf dama lay xool ak Senghor. ba mu yor réew mi dafa neexoon gañaa nga. dëgg la. waa Ndiaye. sur Salam Vision